bokk té spectateurs yi sétane alors Dakar TV Dakar Ndiaye Jal Diop Sangomar nuy naa leen man Dalu dakar ci fii may faram-fàccee yéene la Turbine. la tribune ñu def présidentielle du 24 février 2019 Barthélémy Dias euh, de la grande fraude ma ngay wax waxu fraude mom Barthélémy Dias ci li nga xamante moy la Turbine. suma ma ci la Turbine, damay dem euh, ci l'observateur ñu def Khalifa dans les grâces de Macky le maire de Dakar et son DAF Mbaye Touré ah, ñu ci liste des condamnés hein

face au bord de l'impulsion. Tafa Gueye démissionne Moussafa Gueye ma nga ah, Papa Sow ma ngay Papa Sow exclu ci damay Dakar Times Dakar Times ñu def euh, l'OFNAC saisie pour près de 6 milliards 6 milliards de francs CFA en ah, malversation supposée au ministère de l'éducation du samay wax boo ko Dakar Times su Dakar Times dem critique nous euh, le forum civil cri au scandale boo bëggee xam ne ci biir xoolal li nga xam ne mooy critique yéen a kaay mbokki Sénégal déglooti leen jox leen ma seeni nopp mbir xewatina ministère économie et finance bu Paris mi ngi woon senegal ci weekend bi ma ngi woon ca pale ba xool leen critique yéen a kaay xool leen mi ngi nii ki nga xamante ni mooy Bruno naataangoo Amadou Ba ba maanaam Amadou Ba bu bu bu Paris ka ñu dénk gafaka Paris moo ñëwoon Sénégal seet si Amadou Ba bu Dakaaru ma ngi ca Palais ba barki première dame def teraanga Sénégal bu jeun bu xonk tey delu ndar deukum madame Ba chéri Amadou Ba économie et finance ne brûle man dooma ko dàq mën na teraanga daa dem wuti njur ni solo nañ ko ganila jox nañ tubaab ba ataaya tubaab ba na la président nak dal di koy jox tengado tubaab bi nan xala tengado bi c'est ça le c'est ça le c'est ça qui qui protège le pluie Macky Sall ne ko c'est pour Auchan ba suba